ñu ngi am mbégte euh, dalal euh, docteur Oumar Boun Khatab Thiam euh, di njiital alliance nationale pour la sécurité des patients nekk itam anesthésiste réanimateur docteur ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. alors euh, docteur euh, ñu tàmbalee euh, ak euh, li xewoon Louga fan yi yow en tant que njiital alliance nationale pour la sécurité des patients naka nga réagir ci mbiram Astou Soxna moomu ñàkk bakkanam ci hôpital amadu Sakhir mbay bu Louga. madame Ngom maa ngi jaale famille madame Soxna maa ngi am naqar di bokk tiis bi. ak famille di fàttali ne euh, at ci gannaaw mutul at sax ñu ngi doon waxtaan ci affaire Linguère bi et yàlla def ne matul at ñu amaat cas ci même région ci région de Louga la xewe di donc am naqar ci accident yooyu di xew Louga la xew waaye ñaari yoon mu ci balaa at bi jeex nekk na loo xam ne lu tiis la alors est-ce que yéen euh, alliance nationale pour la sécurité des patients xalaat ngeen xëy na euh, taxawu euh, famille Astou soxna peut-être ànd ak ñoom ci yoon ak yu ni mel loola bokk na ci li ngeen nar a def wala. alliance nationale lu ko tax jóg du dem ay tribunal dafa seet ne yoonu tribunal ci affaire santé. bari na ci àdduna bi du Sénégal rek mais mi ngi commencé bari ci Sénégal aussi ak Afrique bi yëpp hmm. léegi taxawaay bi ñu mën a bi ñu war a taxaw lu tax ñu sos ko mooy aar bañ a àgg ci tribunal faggandiku hmm. mooy def li ñuy wax prévention prévention bi nag fàggandiku boobu nag dana xool ci euh, barabu fajukaay yi ci infrastructure yi maanaam aussi ci jumtuwaay yi ñuy liggéey mais aussi dana dem ci personnel bi ak aussi dana dem ci ni ñuy fajee donc loolu buñ ci waxtaanee maanaam partenariat la ak ministère de la santé hmm. pour mun a aar yenn accident yi naam adduna wërngal këpp kenn mënu ci jëlee accident yi hmm. mais dañoo ne na néew. te am na yoo xam ne aussi mën naa ñàkk. te am na yoo xam ne mën na ñàkk buñ ci fagarloo. Hmm. waaw donc loolu moo ñu tax a jóg. alors euh, lan nga jàpp ne tey dëgg-dëgg mooy jafe-jafe euh, système sanitaire bu Sénégal ba tax na yenn yu mën a ñàkk yi sax di am lu mel ni mbiram astu soxna ndax ministre de la santé sax nangu na ne euh, génn àdduna googu lu ñu mënoon a fàggandiku la lu ñu mënoon a gàttandu la ba xëy na du am. waaw génn astu soxna loolu mooy wane ne suñu système de santé encore une fois de plus dafa woyof dafa amul doole. Hmm. ndaxte. waxuma affaire naam am na effort yu nguur gi di def di tabax ay hôpitaux dégg nga mm. waaye nag dafa loo xam ne euh, mu ngi sooxee dëgg dëgg dëgg ci affaire ressources humaines mm. mooy te loolu li tax problème bi am ba léegi comment tàmbalewul fi de hmm. mi ngi tàmbale ci jamono Abdou Diouf boo ko xeetu Nations Unies yooyu FMI ak bank mondiale waxee ne santé ak éducation amul njëriñ amul amul amul koom-koom euh, voilà amul benn rendement ci loolu la sukkandiku boo fonction publique toog na ay diir recruté wul ay médecins ay docteur chômeur ñoo daan génn recruté wul aussi ay jàngalekat donc loolu moo ñu topp ba nga xam ne fi ñu toll pour pour pour euh, fermer gap boobu day jafe hmm. donc loolu bu ñu toppee naka sa noonu et euh, ñii tey ñu ngi seet ne personnel de santé bi notamment hôpital bu day ni hôpital Louga médecin chef région de Louga ci mois de mai bele passé atum daaw mu génn daal ne man de am naa jaaxle am naa am na am na am na am naa am naa am naa inquiétude am naa ti kii jaaxle. njàqare waaw. njàqare. Mhm. njàqare bi mooy lan mooy awma gynécologue benn pédiatre la am ci région bi loolu moo ko waxoon euh, xaw ma nag diggante bi ndax saafara nañ ko walla mais en tout cas mois de mai bii passé la woon mhm. dégg nga te suma bloc opératoire yi dañoo fer euh, bloc opératoire hôpital euh, Louga dañoo fermé donc loolu mooy lan loolu mun na indi ay accident ay tolof tolof ay ku bëgg a faju du mën faju ku ñëw urgence mu euh, mu ci bakkanam loolu diggante boobu ak li dégg na ci sumay gëstu ne am na ñaari gynécologue yu fa indi mais ci benn hôpital bu day ni hôpital Louga ñaari gynécologue doyut te mbir mi di fa fajoo waaw waaw doyul doyul anesthésiste réanimateur est-ce que am na fa xawma donc et te loolu xeex pour Euh, ni koy waxee jigéen ñi génn àdduna ci bu ñuy. Euh, bu ñuy mucc. Mhm. ak seeni doom pour aar loolu moo nekk priorité pour sunu euh, politique santé. Mhm. waaye nag loo gis ay jumtuwaay leen laaj. Mhm. loo gis ay ay ay ay équipement la loo gis. ay recrutement personnel la laaj mm. te am naa lu ma naqari ba mm. mu am jafe-jafe surtout nag ci yenn spécialité yu mel ni bi nga nekk anesthésiste réanimateur dañuy faral di dégg ñu di ko joytu lu bari voilà mm. anesthésiste réanimateur bariwu fii ah gynécologue bariwu fii si bari Dakar bu ñu leen formé Dakar la ñuy toog du du ñu euh, dugg ci fonction publique bi loolu nag il faut ñu toog dafa nekk loo xam ne man bu euh, gi seetlu naa Euh, nu ñu koy waxatee kii euh, population bi manifester Louga mm-hmm. man dama am tiitange mm-hmm. parce que population bi bu jógee ni ñuy waxee ne yéen a ko rey yéen a ko rey yéen a ko rey ah agent de santé aussi danañ am tiitange jàqare ba nga xam ne nit booy liggéey da koy liggéey sa sago dootuñu liggéey seen sago mm-hmm. te liñ doon seen safaan bi mooy gën am commencé na sax ci réseaux sociaux yi sage-femme yeeg euh, population bi di fa te di waxante yu doy waar voilà voilà voilà loolu la bañ te loolu il faut ñu dalal xel yi ñëpp ñëw toogaat xam ne population bi ñun la sage bi am na mbokkam bi nekk ci population bi wala beneen dëkk du mun a won euh, euh, nekk ci euh, mun a nekk ci ay jafe-jafe mm-hmm. lépp lu dal benn malade ñun ñëpp la dal mm-hmm. il faut ñu toog waxtaane waaw alors ci loolu itam état jël na ay sanctions na mu ko defee woon ci hôpital bu Louga daq directeur ba jël ay daan tegandeegum ci kaw ndoor di ñu ñu joxoñ le temps que bi di di di àgg yaakaar nga ne loola mooy yoon bu baax bi. ah état loola la état waroon def. état administration. Hmm. lu mun a def munul toog croiser les bras. Hmm. il faut mu def ay gëstoom ay saytoom mais yaakaar naa ne defoon nañ ko Linguère te tey Louga la amaat ci même zone est-ce que loolu mooy solution bi xam naa bu li weesoo il faut que solution bu radicale bu définitive bu durable. Ah, bu mun a yàgg ñu jëm ko envisager te kenn mënu ko def lu mooy population bi fajkat yi ñu toog man ko nekk partenaire parce que mënoo faj nit te fekk confiance amu fa. Mm-hmm. déggoowu leen. déggoowu leen. Mm-hmm. kooku mënul nekk. alors faj du fa am. Mm-hmm. alors ci jafe-jafe hôpital yi ba tey ñu wax Dantec gi nga xam ne nekkoon nga fa nekkoon fa chef de service fan yële dégg nañu itam fajkat ya génn jàmbat la nga xam ni moom la ñu fay jànkoonteel euh, tey yow Dantec euh, nga xam ko bu baax euh, kañ ngeen tàmbalee yëg jafe-jafe yooyu ak xëy na état bi ban taxawaay la ci am. bu yàgg lañu ñu yëg jafe-jafe yi bañ dem ba toog waxtaan ak waxtaan sunu biir temps boobu ñu ngi def centenaire Dantec ñu ne léegi. Dantec dafa màggat il faut que ñu toj ko def tabaxaat ko ci hôpital bu mujj mujj ayib pour loolu lañ jàppoon maquette bi sax su ma bañulee mu ngi nekk ministère de la santé waaye ba léegi fajkat yi ñoo jëkk génn naqar ni li ñuy faje ba ñuy wax ne Dantec ñoom seen bopp ñu constaté euh, ñu dem ba sax euh, euh, jànnaxe daal li ne Dantec léegi daal jaax situation bi jaaxal na leen yàgg nañ ko jooytu. te état def ci benn jéego. état état dafa doon xool euh, parce que temps yooyu dañuy wax ne dañu toxal Dantec. Hmm. ñii di wax ne dañ koy tabaxaat léegi xaw ma ba solution en tout cas Dantec daal loof na sonn na te Dantec nag ah ca dëgg dëgg dëgg am na lu mu lu mu tekki système sanitaire bi mm-hmm. am na lu mu def mm-hmm. parce que boo gisee ñuy nekk ci euh, diwaan yi yëpp mm-hmm. Afrique yëpp euh, Dantec formé na seeni médecin ñu ci bari waaw donc ba léegi Dantec ñu mu mel mais ñu ngi ñu ngi faj ñu ngi def lu ñu mën waaye nag mérité li waaye lu ne mën na faa xew itam lu nekk mën na fa xew dama ne la même principal. Hmm. même principal. principal lu fa xew lu fa am. ma ne même principal da accident mën na fa xew parce que d' abord euh, militaires yi fa nekk d' accord ñu xarañ lañ ci mën a faj mais personnel bi doyul. Hmm. am nañ ay euh, am nañ ay infrastructure am nañ ay équipement yu yu ci ay mais dama ne la. parce que rendez-vous da ngay xool pour am pour faju principal bi boo jëlee rendez-vous yaakaar naa ne euh, yombul la mhm. dafay yàgg dafay sore. Ah, yéen xam ngeen ci dara alors fonctionnaire bi nga xam ne daan euh, principal am na droit dem principal am prise en charge am nga dem ñu ne la rendez-vous dans six mois un an nga am feebar boo xam ne kii. loolu lañ koy seetaat il faut ñu seetaat ko hmm. affaire bi il ñu toj ko tabaxaat ko il faut ñu toog waxtaan bu ñu naxante suñu biir. waaw li nga fi wax yëpp doy na waar raglu na wopp dëgg la. ci système sanitaire bi waaye ndax yaakaar nga ni ba tey solution mën naa am. ah oui yaakaar bi ñuy am dañuy dundee yaakaar bu baax. lan la ñu a def lan la ñu mën a def ba génn ci jafe ngi jógee ci koom-koom bi nga xam ne yàlla suturaat nañ ko ba ñu ngi koy am hmm. pétrole bi. pétrole bi bu génnee nañu def priorité ci njàngale mi ak santé bi kooku buñ ko defee rek euh, mun nañ dem ba euh, parce que koom bu boo ci defee da nga mun a tabax ay ay ay hôpitaux mm-hmm. parce que léegi département bu ci nekk dafa war am hôpitalam au moins de niveau département bu ci nekk war na am hôpital de niveau. Mm. askan woowa di fa yem di fa fajoo néew war na am hôpital. Mm. dégg nga mm-hmm. département Nioro am na benn euh, centre de santé buñ doon opérer sax ay famille yu matu. Mm-hmm. mais nañ ko def jëngi néew bloc opératoire. donc il faut que xaalis bi bi ñuy séentu ci pétrole bi ñu def ko ci santé bi lu ci bari. te mun na suqaliku parce que Sénégal dafa war a am loo xam ne nit ñi dañu jógee bitim réew di faju si fi te am na te loolu xam nga lenn aussi choqué na ma Sénégal xam nga boo fi yow da ngay fay impôt waaw bi mooy mooy tax ñu joxe budget hôpital mm-hmm. hôpitaux yi mm-hmm. yow boo feebaree ticket modérateur ngay fay mm-hmm. dégg ñu ne Euh, impôt bi donc yow da nga fay ñaari yoon. Mhm. ticket modérateur ak impôt bi ngay fay. Mhm. waaye ki jógee ci beneen ci beneen réew. réew euh, Gambie wala keneen ki bu ñëwee di faj si yow ticket ticket modérateur bi li jënd loolu fu ñu ko teg. Hmm. kon dafa war a gën a cher. mais bien sûr. Hmm. parce que yow sa genn wàll joxe nga ko ca impôt ba. ñoom aussi dañuy euh, kii. Ah. kon loola mënoon naa jur xëy na koom-koom ci secteur bi. bien sûr. Mm. bien sûr man loolu jaaxal na ma man en tant que économiste de la santé loolu jaaxal na ma. Hmm. boo demee Gambie gi boo demee di faju foofu dañu ne yow Gambien nga am nga nationalité nga wane sa carte d'identité ñu ne lii ngay fay yow foo jógee Sénégal ñu ne nga fay double bi wala nga fay lu ko. Hmm. te noonu la war a demee. <coughs> mais bien sûr. Hmm. ce équité-là. waaw ah. on est africain d'accord mm. mais il faut que ñun euh, xam nga sunu euh, njëgu euh, soins dañ ko subventionné. Mm-hmm. état bi impôt lay jël ci population bi. di koy dugal ci santé bi. Mm-hmm. mais yow en tant que sénégalais da ngay fay impôt. Mm-hmm. ñu dugal ko ci santé bi mais gan bu jógee fële bu dëkkul Sénégal xam nga du fay impôt. de. xanaa peut-être taxi ci voyage yi je ne sais pas. xam nu muy demee. Mhm. man daal loolu jaaxal war nañ ko xoolaat daal ci sa xalaat. Ah, mhm. mm-hmm. jërëjëf. docteur voilà. Oumar Boun Khatab Thiam euh, yow yaay njiital alliance nationale pour la sécurité merci. des patients amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM tey fàttali itam ni anesthésiste réanimateur nga. merci beaucoup jërëjëf docteur Thiam. merci. kon Anna Thiaw ñu delloo la lenge yi nga wéyal blog d'information bi fàttali ni docteur Thiam mën nañ koo teeluwaat ci réew mi point com ak réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube.